Koura Ndiaye bàjjen Koura Ndiaye baale ma la ilaha illallah tey Samb waaw wuy ma hmm. yére bi bu mu takk nag Samb ban ñamu mbaam rek nga fi sañse Samb yow bu ma tegee ah, yére daa takk nag ma àbb sa bos bi bàyyi foofu toog nga weer ma xam nga dinaa génn si mbedd mi ñu ne damaa àbb yére bi ah, ah, del boole lu ànd waay Baro yaay aleykum salaam yaay amee tànk lay maa ngi nii salaamaaleykum yaawa a joonu faal. yow yow la kan. xamoo ne man la kan. yow dama koo xam. ah. yow boo dugg si doo tàggoo. tàggoo naa nee naa salaamaaleykum. Ah, nga fëgg. ah. lan la. ci kan la. ndimbal may dégg. yaa bëgg ngeen dimbale ma si. yow la kan foo dëkk. ah yow la kan. man xam ngeen ma. waaw waaw kaay kaay kaay. déedéet déedéet waa ñëwal nii. waa ma. waaw yow noo Demba Ba. Demba Ba waaw. foo jógee. man ah. footballeur. déedéet. fii dina football. ah waaw dégg ma say xeeb. waaw ma la ci waaye nan lañ lay paase. ah soo ma paasee ma ne nii teg. Ah. ah Demba mii. Ah, ci pël yi damay ragal ñu bo ñu de. Ah, aywa ma waaye chaque jour ma tooxoo ak yéen. ah ma saa gis. waaw muy bàyyee ko. maa ngi bàyyee ko euh, euh, Pikine. Pikine. fa nga doxee ba fii. yow nag xam nga bu doon man maa yow. Hmm. doo jël oto. Hmm. doo doo doo kii dox. Hmm. naal ma lu may def. li may def banque sa bopp rek di bërëngu. a bërëngu. <laughs> baa fa nga jëm. alaaj baa nga da ngeen koy jafe. Ah. nga lem sa bopp. ma loolu amul solo wuy ma. dem ba lan nga wut. ndimbal i may dégg. waaw. ah. si bi de gouvernement bi de. xam naa ko. kii ku xam nga mën a xam waaw kii xam naa ko. nun la bëgg a nax. yow gouvernement bi dimbalee nañ la fi ñetti millions anamu. ñetti millions. waaw. liir naa ko. foog yee. kii ya internet mi ngi nii kii la ba. Demba Demba yaa ngi jàpp nañ la. da ngeen juum. Ah. ah da ngeen juum. ana nit ñi dañ la koo joxoon. ma ne yooyu amul. lu am amul. wax wax lu am. dara amu fa. mu demee la. damaa gisul dara. waaye joxe nañ ko. dégguma dara. waaw waaye ah dafa egg si wul. waaw buñ ko joxee te egg si wul mais. waaw noo def ak loola. ñu may def coow yu bëri na trop. waaw ah waaw. maa ngi toog fu ma romb jox nañ la million jox nañ la million. waaye yow rek lan lañ la jox yow. ceeb ak suukar gisuma dara. ceeb ak suukar rek waaw. xam nga nag xam nga man dama lay wax dëgg sama man damaa bëgg nu xaritoo dinañu programme waat beneen ngoon nal invité la nga toog fee ca chaise ya ah. wax loola nu mu demee ñun wóoruñu. da ab dégg rek lañ ci am waaye ceeb ak suukar googu ñu yow defa nga ñu kooku ñu jox xaalis ma tegu la am parental am nga am parental la ah. eh, liir waaye bu ma ko tegu de waaye xelmati na ko ah dafa xelmati yow gone nga mu jox la ceeb ak suukar ah, te millions ya ah Demba ana sa wax la nag de am nga jabar ah? ay dooma waaw ah yow Demba mi yow moom. jàmbaar nga mu ne ak ñaata ngay sol. 32. man dama laa bëggoon ñuppil waaye sama yére jotul. la suñu yére jotul la. jërëjëf ah ma sa njëriñ kay ma ñamoon ñeent. waaw wuyu Demba ma sa njëriñ dellu si. Ah. boo fi dellu see. Ah. dinañ la waajal ngoonal boo xam ne yow rek la bu ko defee la ma lay jox man dinaa la ko jox loxo loxo duma la jëndal meew du ma la jëndal dara dégg de waaw mën ngaa dem nga nga ña nga nga. da ngaa bëgg naan ci attaaya ji. ah waaw ah bëri na. ah dégg nga baro la muy xalam. dama neex na amoo loo ci wax. aywa. Ah, amoo loo wax ci xalam bi. Ah? xalam bi. yokkal ma jéggi. yokkal. ah loolu nu ñu ko yokkee ay loxoom la koy defee. ah mun na gën a fo. demal ah, demal mun na gën a fo. ñëwal. ci yàlla suñu borom. ñu baale ma lay génn de. baale ma yàlla rek a sañ. yóbbaale maa yoo dégg nga compte temps la dégg nga compte temps yóbbaale maa yoo. yóbbaale maa yoo waaye Sane da nga may comprendre nag waaye waaye da nga may comprendre nag yow yóbbaale waaw kii day polémique waaye nag jàmbur nag waaye di commandé xalam nga jox xalam ko ko muy génn gaam xalam nga aw ne muy tarti tarti di aw na la ah ngay génne gaam waaw eh, bi waa adduna bi génne gaam nga génne gaam aduna dañoo génn gaam nga génn gaam waaw ah, wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg Demba. merci Demba ma jotuma ko ñuy wax. ah déedéet man nag ñun doon lu ah, ah, ñun ab dégg lañ ci am rek. foog ma génne gaaw foog ma génne gaaw. Euh, Demba na nga jàppal bés nga ñëw fi dégg nga. baax na soo ma ne baax na. wuy ma fekk bu ah. bees bi. bañ ca góogóog càkk ca góogóog. góogóog góogóog góogóog teg temps. Eh, juutu gi nga juutu juutu lan la. allah doo ko juutu. allah biñ dee jógal juutu ko alaaj. kon naa wax waay Samb. alaaj oh Samb. alaaj lii daawoo dëgg mu naan dama leen di tojal. waaw boppam la ko def nag. ah boppam bu <laughs> juutu la. Demba moom ku ñu bàyyi mu wëñ. man yow def nga Demba nii la.